alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa radiyallahu taala an asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-aziim ya himmata ash-shaykh ihduri lana bi haadha al-mahdari wal ta'sufi bi nadratin ta'ti lana bi zafari asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki ahbaaba cheikhil islaam maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla boo leen defal tawfiix ñu fas yéene àndaat ak yéen ci suñu dars ruuhul adab lima xawaa min xikamin wa adab ñi ngi taxawoon nag ci ñeent fukkeelu bayt ak ñett fi ñu bàyyi di jàngale ni walasta tarda man yadurru abdaka wa in asa fattaqiina rabbaka muy ay bayt yu am solo ñu war a tàmbalee nag ci ñeent fukkeelu bayti bi ak ñeent bàyyi ne wa laazima alxuzna wa laazimi alxuzna wa dikra almawti laa tansahu kada suaal almayiti bàyyi ne wa laazim na nga taqoog alxuzna wala alxazana njaqare luy loolu mooy doomu aadama bi fépp fu mu toll rekk dafa war a tiit ci boppam nu mu baax baax baax baax baax warta wóolu pexeem yàlla ndax makrullaahi moom képp ku koy wóolu rekk ci perte ngay mujjee falaa yamanu makrallahi illa al qawmu moo tax bàyyi ne nanga nga taqoo di jàq ci sa bopp loo def ci lu baax xeeb ko jàpp ni yàlla du ko nangu nga góorgóorlu ci lu baax ba keroog ngay sàngoo suuf wa dikral mawti ak fàttaliku dee laa tansahu bul fàtt bu ko fàtte maanaam bul fàtte wala boog nga ne kadaaniki noonu su alul mayiti laaju malaake yi ñuy laaj aji dee ji ci biir bàmmeelam laa tansaxu bu ko fàtte boo ko xadamee kon bayti bi bayti bu am solo la mu ngi delloo ci suñu borom ndax dee moom lañuy ñuy wax aqrabu ghaibin yuntazar li fàddu li la tam laa tam gën laa jege ci li ngay xaar mooy de moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am benn saxaaba boo xam ne dafa doon mébét ay mébét yonentu ne kii de moo ma gën a dëgër fit moom mii xalaat liy ñëw ci kanam kanam man nga xam ne maa ngi xalaat minute bi ma dëgmal ndax dina ma fekk may noyyi kon jaam bi fépp fum mu dafa war a xam ne li ko fàddu te gën koo jege mooy dee te saxuwaay bi gën a raglu gën a tumuraanke ci saxuwaay yi nga war a sax mooy sa bàmmeel benn mu nekk jardin ci jardin wu yi wala mu nekk ab kàmb ci kàmb safara yi li nekk nag ci ginnaaw lii di la xaar moo gën a tar te gën a métti te taxawaayu bis moo tax jële nañ ci imaamu ahmad ak abu yaala ñu solo jëlee ci abi saidin al radiallahu anhu mu jëlee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ne yusallatu ala alkaafiri fi qabrihi tisatun wa tisuna taniinan tanhashuhu wa taldacuhu xatta taquuma alsaaca falaw anna taniinan minha nafaxat fi l ardi ma anbatat xadra yonantu bi alayhi salaatu wassalaam nee na yéeféer bi ci bàmmeelam yàlla dina ko booleek ay xeetu ñàngoor maanaam jaan yu raglu yooyu ak xeetu jiit ñu di ko màtt ak fet ba keroog péncam yàlla di taxaw mu ne benn rekk ci jaan yooyu bu génnoon ci kaw suuf ba nokki fi ak nokkeem fépp fu nokki gi jaar foofu dootul sax ab gàncax kon gis nga loolu doole bi mu àndal te loolu xeet la ci mbugal yi nga xam ne xeetu mbugalum bàmmeel la moo tax bàyyi ne na jàq te fàttaliku dee foo mën ci toll jële nañ ci abi radiallahu mu jëlee ci yonantu bi salallahu alayhi mu ne inna al fi qabrihi la fi rawdatin xadra fa yuraxibu lahu fa yurxabu lahu qabra sabauna ziraan wa yunawar lahu kalqamar laylat albadr atadruuna fi ma anzalat unzilat hadihi al aya fa inna lahu maishatan dankan wa naxshuruhu yowma alqiyamati ama qaal atadruuna ma almaishatu dank qaalu allahu wa rasuluhu aclam qaala cadaabu lkaafiri fi qabri walladi nafsi biyadihi innahu yusallatu calayhi tiscatun wa tiscuuna taniinan atadruuna ma taniin sabcuuna xaya likulli xayin sabcu ru'uus yalsacuunahu wa yaxdishuunahu ila yowmi alqiyaama ibnu xibbaan ak abu yaala ñoo solo xadis boobu muy xadis bu raglu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ci li Abu Hurayrata nettali ne jullit bi bàmmeelam day nekk jardin bu naat ci jardin bu àjjana yi ñu yaatalal ko ko ba mu toll ci juróom-ñaar fukki xasab ñu leeralal ko ko yi tamit ba mu leer ni weeru fukki fan ak ñeent mu teg ci laaj ne ndax kam ngeen lu waral yàlla subhaanahu wa taala wàcce aaya bi mooy man daan zikri képp koo xam ne danga nga dëddu sama digal man borom bi tabaraka wa taala ma digal la nga julli nga bañ ma digal la nga woor nga bañ ma digal la mbooleem lu baax nga bañ mu ne képp ku dëddu sama sikar sii di alquran fa inna lahu maisatan dankan kooku dina am dund gu xat waaye dinañ ko fang ëllëg yowmal qiyaam muy aji gumba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu jàngee aaya bi laaj saxaaba yi ne leen ndax xam ngeen lan mooy almaishatu dànk ñu ne ko yàlla ak yonentam ñoo ko xam mu ne leen mooy mbugal mbugal mi yàlla di mbugal xéefar ci bàmmeelam teg ci ne maa ngi génn ci ki nga xam ne sama bakkan ci ay loxoom la ne ne yéeféer bi ci biir bàmmeelam dinañ ko boole juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci ay taniin ndax xam ngeen luy titanine ñu ne ko déedéet mu ne leen mooy juróom ñaar fukki jaan yoo xam ne benn bu ci nekk day am juróom ñaar fukki bopp bopp bu nekk mu di di ci matt waa ji di ko ci fet ba keroog péncam yàlla xam ngeen ni loolu lu raglu la kon moo tax bàyyi di ñu sant ñu di jàq ci suñ bopp te fàttaliku dee waaye tamit bu ñu fàtte mukk laaj yi nga xam ne dinañu ko laaj ci biir bàmmeel moo tax jullit bi dafa war a góorlu ci tegu ci yoon bi nga xam ne mooy yoon wu baax bi loolu moo ñuy jëriñ ëllëg yowmal qiyaam rot na ci muslim ak na ci buxaari jëlee ci ibnu omar radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ma maa xaqu mri'il muslimi lahu shay'un yuusaa bi fiihi eh, yabiitu laylatayn illa wasaytuhu maktubatan wasiyatuhu maktubatan mu ne amul lenn loo xam ne dina yey ci ab jullit bi ñu dénk ko ko lu dul ni moom ñaari fan lu ndénkaaneem boobu day doon lu war ci moom ci beneen riwaaya mu ne ñetti guddi loolu di lu am solo kon nañ gaawantu ci jëf lu baax balaa ñu yegg ci tële loolu la bàyyi di jàngale ci bayit bu am solo boobu doomu aadama bi nag bu duggee bàmmeel dinañ ko laaj laaj yiñ koy laaj kuy sa boroom kuy sa yonant ndax yonant bi sallallahu sa wa day teew ñu joxoñ ko ko ne ko ndax xam nga waa ji loo xam ci moom luy sa diine ak luy sa téere yi yëpp dañ koy laaj aji nekk ji ci bàmmeel moo tax baay ne laaj yooyu bàyyi ko xel maanaam dundal alquran ndax bu ñu la ko laajee nga mën a tontu dundal yàlla ndax buñ la ko laajee nga mën a tontu dundal yonantu ndax buñ la ko laajee nga mën a tontu dundal lislaam ndax buñ la ko laajee nga mën a tontu bàyyi ne laa budda an tuqaddima taalluma fa kun li shiraatil ilaahi muhkama ne jaam bi soo bëggee texe faaw rek nga jiital njàng kon nag fakkun na nga nekk muxkaman di kii xarañi li shariatil ilaahi ci sariyaab yàlla bi bayti bii nag yellante koon taalibe baay yépp taxaw ci ndax léegi li xew ci jamono mooy damay gis sëriñ bu ma neex dem jël ci moom tarixa tarbiya ci moom jeex na xam naa lépp xam-xam sama yoon nekku ci jaamu yàlla sama yoon nekku ci shariatu sama yoon nekku ci loolu c'est faux Baay dafa ne la budda an tuqaddima taalluma faw nga jiital ab njàng boo jiitalee njàng nag mu ne fakkun nanga nekk di muhkaman di xarañe li shiraatil ilaahi ci sariab yàlla bi moo tax ñiy woowe seen bopp aarif di di doyadal shariatu duñ dara ñiy woowe seen bopp aarif di sàggane chariatu duñ dara ñi woowee seen bopp aarif te duñ dund chariatu duñ dara ndax bàyyi ba muy jàngale tasawuf tasawuf dëgg dafa ne maarifatun wa ibadatun wa zahada xam yàlla la dund chariatu ak dëddu àdduna wax na ko feneen ne jamoo chariat jamoo chariat euh, ma tariqati boole charia tariqa ilal xaqiqati jëm ci xaqatu ural wasiqati mooy buum bu dëgër bi kon fala ura amilu ila ma laysa fi shar'i jaiza dégg ngeen bàyyi wax ko ne kenn duma gis may jàng di jëm ci loo xam ne sharia daganal ko kon te loolu moo waraloon sax moom bàyyi ñu di ko woowee cheikhul islam doomu aadama bi yàlla daf ko bind teral ko ndax daf ko bind ci jëmmam sant ko nag mu jaamu ko jaamu gi mooy mu kennal ko delloo ko lim moom moom yàlla loolu nag sant ko ko rek seetaan ko déedéet daf ko jaarale ci ay jaaruwaay bind ko ci nutfa nekk ci biiru ndeyam mu def ci moom ak góore walla ak jigéene jàngal ko ci biiru ndeyam fala xamee lekk fala xamee naan niki noonu mu génnee ci jaaruwaay wu xat ñëw ci monde bu yaatu te àdduna yaatu na waaye xat na ci ku bëgg dund yàlla yàlla seetaanu ko mu wàccee ci moom alquran yónnee ci moom yonantu yonantu buy jàngale yoon wi di tegtale di niit lëndëm lëndëm yi ba mu mën a tegu ci yoon njëkk koo digal ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal sa turu boroom mi la bind tàmbaleel jàng ci bismillahi rahmaani mooy bind bind doomu aadama ci alaq maanaam ci lumbu deret jàngal rekk sa boroom teral la kon teraanga mi ngi jóge ci njàng jàngal rekk sa boroom teral la iq iq iqra wa rabbukal akram loolu lay fi kon umma bi ummab jàng la dangay jàng benn li nga jàng nga jëfee ko ñetteel bi mooy li nga doon jàng ba jëfee ko nga fexe ba mu nekk ci keneen boo amee setantal dangay gis ni ñetti aay yi ñoo njëkk wàcc ci alquran mooy bu njëkk bi yaa ayyuhal muzammil qum mooy la nga jàngoon jëfe ko yaa ayyuhal muddassir qum fa andir la nga jàngoon di ko jëfee E, e, e, jàngale ko kon loolu <coughs> lu am solo la ci lu ñu war a bàyyi xel bu baax a baax kon nag bàyyi nee na nañ jiital ab njàng laa budda an tuqaddima taalluma fa kun shiraatil ilahi muhkam muhkama ginnaaw ba nga jiitalee njàng nag xarañeel li nga xam ne moom mooy sharia bi yàlla bi mu mel ni dañ ko laaj lu tax mu ne fal ilmu ndax xam-xam amri giñ naa ko ci sama dund huwa imaamul amali mooy njiitu jëf kama kom na mu dikkee an taaha jóge ci taaxa yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne xayri rusuli mooy ki gën ci mbindeef loolu nag def ci junj benn xadis bu yonent bi sallallahu alayhi jàngale kii nga xam ne mooy euh, al imaamu tirmisi in na ko ci téeréem ci kitaabul ilmi ci sunanu abi daawud euh, sunanu tirmisi muy xadis bu am solo jëlee ko ci abi umamata radiallahu anhu mu nettali ne yonent bi sallallahu dafa doon tudd ñaari waay kenn ki jaamukatu yàlla la kenn ki boroom xam-xam la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ngëneel ak boroom xam-xam bi ci kaw jaamukatu yàlla gi mu ngi mel ni sama ngëneel man ak ki gën a suufe ci yéen mu ne yonentu teg ci ne sallallahu alayhi ne yàlla ak malaakam ak waa asamaan ak suuf ba ci xorondong yi dox ci kaw suuf wala yu nekk ci seen biiri pax ba ci xorondong yi nekk ci seen biiri pax ba ci jën ya ñoom ñëpp dañuy julli ci ki nga xam ne mooy jàngalekat bi ki nga xam ne mooy jàngal nit ñi ab yiw kon gis nga ngëneelu xam-xam ak ngëneelu boroom xam-xam kon fii boroom xam-xam bi lañuy jiiñ ngëneel lii te taxul dara taxul ñu jiiñ ko ngëneel loolu lu dul lim làmboo ci xam-xam muy lu am solo kon nag bàyyi ci loolu lañu bëgg a xiirtal ñun ay taalibeem nañ dem jàngi ñu bàyyi dof doflu bi ñun ay taalibeem nañ dem jàngi ñu bàyyi langaamu ci yi nga xam ne amalul ñu benn njëriñ bàyyi loolu la daan wax dem leen jàngi ndax ngeen def nit ñi ñuy ay nit ku jàngut amoo xam-xam da gaaw a yéemu di nga gis jël nit sax teg ko place yàlla te nit àdduna du yàgg ba mu nekk yàlla yàlla yàlla la nit nit la ndax nit majaas la mënta am ci kanamu yàlla kon nag nañ góor góorlu dem jàngi loolu lañu bàyyi di sant waaw moo tax jàng yi tamit yem ci bay bëggut ko moo tax bam bam la ne demal nga jiital njàng daf ci teg ne fakkun li shiraatil ilahi muhkama na nga jëfee li nga jàng moo tax yonent bi sallallahu alayhi da daan wax ni benn faqih kenn ku dégg diine moom la seytaane gën a bañ ci junni jaamukatu yàlla ndax kéew ku dégg diine mën naa jël loolu def ko ci ñeneen ki jaamu yàlla nag moom fi toog la toog rek di jaamu yàlla li muy def baax na lool waaye seytaane faqih bi la gën a ragal ibnu maaja radiallahu anhu moom itamit indi na xadis bu am solo ci xadisu abi dar yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ki bu xëyee jàng benn aaya ci téereb yàlla bi moo ko gënal moo gën mu xëy julli ci yoon jul mu xëy julli téeméeri ràkk wala in wali an taxdu fa taalama baaban min al ilmi nga xëy jàng benn bunt ci buntu xam-xam yi amila bi nga jëfee bi wala jëfewoo ko moo gën nga julli junni ràkk Ibnu Maaja solo na boobu ci sanad bu wér moo tax xam-xam mooy centralu jëf maanaam moo lay guider pour nga mën a jëfee li nga xam boo amul xam-xam bëgg a jëfee nag dangay mel ni gumba goo xam ne amut ku ko mat léeg-léeg mu bëgg léeg-léeg mu dal fii moo tax yàlla sax lim njëkk a wax mooy faalam annahu laa ilaha illallah xamal ni kon xam moo jiitu balaa ngay jëfe dara xamal imaam al Buxaari noonu la ubbee buntu ci téeréem E, e, e, baabul ilmi qabla al qawli wal amal bunt bii mooy buntab xam bala ngay jëfe qabla baabul ilmi qabla baabul ilmi qabla al qawli wal amal balaa ngaa wax wala ngay jëf dafa war a fekk nga xam kon mbokk yi ñetti bayt yi mooy doon suñu dars tey allahuma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima uliq